organisation spatiale bi yëpp mm, c'est vrai que dama ko fàtte wax ci français tey n'importe quelle entreprise bu ñëw Sénégal bëgg fa installé wu il faut que mu am visa wu ANAT euh, à part les forces de sécurité et de défense loo bëgg defar ci Sénégal il faut nga am visa de localisation boobu noonu te ANAT moom moo ko yore euh, anaat aussi dafa yore ay programme yu mag a mag euh, mooy li ñu war a defar seen li ñu war a defar Sénégal fii ba deux mille quarante cinq en terme de de d'université en terme de yoon yi muy yoonu raay yi di yoonu yoonu oto yi xam naka la ñuy waxee autoroute sax mun naa ko wax autoroute benn yoon rek euh, pour la mise en œuvre mooy plan national d'aménagement et développement territorial du Sénégal mais il aussi li ñu naan le programme national d'appui à la valorisation des ressources territoriales xam nga ñun ñoo yore la cartographie nationale dañu def li ñu naan télédétection ñu cartographier ressources yi Sénégal am yëpp am nañ euh, ay ressources minières am nañ ay ressources minérales am nañ ay ressources pétrolières ak gazières am nañ ressource ressources végétale ay garab yu bari am nañ aussi tamit euh, ay ressources animales ak ressources halieutiques yëpp dañ ko bëggoon a won aussi waa diaspora sénégalaise bi ñu nga xam ne ñu ngi nekk au niveau de de Doha au niveau de Qatar de façon général wan ko yeneen investisseurs yi yeneen réew yi fi ñëw yi parce que réew yu bëri ñoo fi daje xamal adduna bi yëpp que Sénégal am na ay ressources yu bëree bari bari bari xamal àdduna bi yëpp que ne Sénégal am na position géographique bu exceptionnelle soo leen xoolee wàllu histoire dañu occupé woon une place centrale parce que avec le commerce triangulaire ñun ñoo nekkoon au cœur même de cette euh, de de cette euh, je dirais de de cette activité boo xam ne ne c'était de l'économie en quelque sorte c'est vrai que ñun amuñ si woon bénéfice bu bari bari parce que ñun ñoo si doon perte maintenant loolu dañ koy amaat mais defaat inversion bi bii yoon dañ si am lu bëree bari bari parce que am nañu gaz am na ñu pétrole suñu position bi ñu amoon bi jógu euh, fa amaan nañ yeneen ressources yu bare bari yoo xam ne aussi dañ leen cartographier ba ba gis leen euh, loolu moom moo ñu andi fii nii pour que adduna bi yëpp xam ne Sénégal nekkul réew bu ndaw économiquement dafa am ay ambition yu mag a mag a mag pour industrialiser commune am yi industrialiser département am yi industrialiser grand ensemble am yi muy les agropoles et autres. industrialisation. loolu kese mooy la solution pour man pour ñu arrêter mbëkk mi parce que Sénégal ressources yu mu am yëpp dañu leen jël benn bu nekk ñu defar cartographie bi defar euh, li ñuy wax fiche de projet yi fiche de projet comme par exemple mun naa joxe exemple gomme arabique gomme arabique ku ko ku ko am tey mun nga tey adduna bi si si alimentaire ñun bokk nañ si si cinq à six pays yi nga xam ne ne ñoom ñoo ko yor su ñuy wax conservateur yi di wax euh, additif alimentaire yi gom arab arab bi kese mun naa wax ne ne moom mooy produit bi ci gën a alal bi ci gën a sell bi ci gën a sain mooy bi ci gën a bio te yàlla def na ñu am si lu bëree bari bari ay millions yi garab sax lañ ci am presque soo demee diggante Linguère ba guddiri lu bari bari lañ ci am bëgg nañ mu nekk une grosse industrie au niveau di Sénégal ak sunu pétrole bi sunu gaz bi sunu produit halieutiques yi sunu phosphate bi am nañ or am nañ matière première yu bari bari yoo xam ne ne tey euh, ñeneen ñi dañ ñoo soxla il faut que ñu won leen ko pour que ñu gën a mën gën a bëgg Sénégal ak stabilité bu ñu am beeg yooyu noonu dinañu permettre ñii ni ñu dem ba toll fi tey fi yekk ay ati at suñ leen da suñ leen suñ leen dabul it ñu tollook ñoom démb def nga benn exposition ci marge journée Sénégal la moo nekkoon njëriñ bi. waa njëriñ bi mooy li ma nettali fii nii mooy ressources yu ñu yor yi ak position géographique bu ñu yor bi lañ doon won euh, adduna bi yëpp lañ doon woon sénégalais yi nga xam ne aussi xamuñu ko woon te ñu ngi nekk à l'étranger euh, pour que ñu ñëw investir au Sénégal.